alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin taala wa bokki jullit yi ak bokki taalibe muridi ñu toog ci kanamu kilifa gu tedd di Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak yéene jure jëm am ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu woon may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko nu kawe njortam ñu toog fii nag fa yéene jotale ay kàddu yu néew di jéem a fexe ba ni mu ko santaane donte suñu làmmee lottu na ci doon ko jotale ñu jéem ci ba fa suñ kem kàttan ñu jéem ko mottali ci yéene kon ci ndigalu sëriñ bi ndax wax ci kanamu sëriñ bi dafa diis ndax ko xam jataay bi mu toogee xam li mu doon boo yëkkati ci turam faw mu diis yow kon ñi mu ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk réew mi di nuyu bokk àdduna si di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru koor nga xam ne ñëpp xam nañ yitte ak positif bi nga xam ne def na ko ci ngir fas yéene ko dundale ni ko lislaam santaane dàkk ci ni ko Serigne Touba da dundale mu yóbbante ma nag ay kàddu jëme ko ci taalibi jul muridi nga xam ne ñoom la sañe digal sañ leen a tere kon kàddu yi mu ngi jëm ci bokki taalibi muridi ndax ñoom loolu rek li seq ñoom di ko jëmalee ci wala mbokku jullit boo xam ne mi ma yaqbalu nasihata min axiil muslim kon mooy kàddu yi nga xam ne jëme na ko ci yéen kàddu yi nag mooy ginnaaw bu mu leen santee ci li weesu lépp mu am tuuti ay leeral yoo xam ne da ko fas yéenee jëme ci bokk taalibe yi ngir ñëpp maasi ci xam ab tolluwaay ak fi mu toll ak fii nga xam ne fi la nekk loolu itam dafa war a leer ci ñëpp ndax ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa li la war mooy santaane digle ak tere loolu rek nga seq ak nit ñi taalibe yi itam li ñu seq ak yow mooy sami'naa wa ata'naa loolu rek la lañ am seen digg ñoom mooy lépp loo xam sëriñ bi santaane na ko rek boobaa amatul li seytaan la maa kaana wa maa kaana li muminin wala muminatin iza qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al xiyaratu min amrihim kon lépp lu mu santaan rek jëfi ndigal lañ ci war a def santaane bi nag mooy leeral rek moom fi mu toll ngir xam ne lépp loo xam ne dégg na ko muy loo xam ne war naa indi ay rëngi-rëngi war a indi sansatu ci biir réew wala adduna si fam ci nekk ak fam bëgg ñëpp ne fa nee na moom fi mu nekk fii la yéen bokk jur yëpp ne fa fii la yéen bokk taal yëpp ne fa mooy ñëpp yi ca xam ne lépp loo xam ne luy indi fitna la ci biir réew mi na ko ñëpp wattandiku te sax ci jàmm te xam ne Serigne Touba ci loolu la nekkoon ci lool la loolu santaane woon ndax lu ne mas lu ne def nañ ko ko ba tàyyi waaye lu ñu ko mas a defit li muy wax mooy jégal na leen kon Serigne Touba na xam ne du ku ñuy xoolal du ku ñuy xeexal li nga xam ne nag mooy li nga xam ne bëgg na ñëpp xam ko. muy lu war a leer ci bokki jullit yi nee na daa bëgg ñëpp maase ca xam ne nit balaa doon ab taalibe day doon jullit ba noppi nee na kon li ñu war a njëkk a lu mooy fexe ba sunu njullit ba sunu njullit wér bu suñu njullit wéree suñu taalibe dooru mën a wér waaye nee nit du du mën a doonub taalibe te doonutub jullit ba noppi kon nag na fii lislaam toll ci ràgg nee na ñun tëluñu lenn lu weesu fexe ba lislaam jëpp nekk yoon say waaye lépp loo xam lu koy xajjal neen moom tëlu loolu te fas yéene na bëgg taalibe bi yëpp maasa ci nekk la ko foofa xam ne daal eh, li war a nekk yiteem yite ñëpp mooy fexe ba lislaam ji ni ko rasulullahi digle woon nga xam ne leer na nañ ñi nee na amul lenn lu ci lënt nee lu ci lënt rek ci doomu aadama la waaye suñu borom li mu santaane wàcce ko ci alxuraan lenn lu lënt néew ci kon nag na ñëm maase ci xam ne ndegam men lënt amul nag kon li ñu war a def góor góorlu mooy fexe ba góor góorgóorlu ci lislaam ji wér taalibi gi wér sëriñ itam ñu xam ne dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa doon gi mu doon rasulullahi sallallahu alayhi moo tax itam bañ na ko ba dafa tuddee boppam xaadimu rasul xaadimu rasul nag mooy jëw nit ñi rasulullahi sallallahu alayhi wa kon lépp tàbbi ci biiram kon mboolem tariixa yëpp itam eh, na ko sëriñ bi daa santaane ku ne xam ne ne sëriñ Tuubaa daana joxe wérdu xaadir daana joxe wérdu tijaan ak association yi ak yeneen yi ci des yëpp kon loolu lim ci jëf wax ko ci laaj yi nga xam ne gouverneur général laajoon na ko ko itam ne ko ñan ñooy yoonu murit fu yoonu murit juddoo euh, fan mooy barabam lépp géntoon lislaam daa wax ne képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi euh, na nga xam ne ci ak njabootam nga fu julli nekk itam fala la euh, fu julli ne rek fala la ñoo di taalibeem kon Sëriñ Tuubaa wutu wutu doon ak xàjjare ci diggam ak kenn koo xam ne mbokkum jullitam nga ci loolu itam fonk gi mu fonkoon rasulullahi sallallahu moo tax képp koo xam ne fonk nga Serigne Touba itam na nga xam ne boo bokk ci njabootu rasulullahi sallallahu alayhi wa rek bokk nga ci njabootu Serigne Touba waaye nag boo dugg ci njabootu rasulullahi walla eh, amoo xamoo lay rasulullahi sallallahu loolu doo maa tàbbi ci biir ndax Serigne Touba loolu moo doonoon muhimmam kon loolu na ko ñëpp xam. médaille bi nga xam ne bëggoon nañ ko ko takkal itam la taxoon sëriñ bi gànt ko dafa waxoon ne médaille bu ñu ko ko takkalee loolu day firndeel ne xajju xajjal ko dem ci biir islam kon nag sëriñ bi nee na loolu kon nee na na ko kilifaam yu jëkkee defoon ndax sëriñ Tuubaa ko santaane woon kooku fi mas sa nekkal ku ne itam ci lii nga nekk xam ngeen ne 1979 80 bi nga xamee ne yu mel nii xewoon na te boo booba sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moo fi nekkoon Euh, Serigne Moustapha Bassirou ñëw àndoon ko moom ci xew-xew bi meloon nii Cheikh Abdoul Ahad Mbacké taxawaay bi mel nii la ci amoon mooy xam le ne Serigne Touba du ku ñuy xoolal du ku ñuy xeexal ku ñuy gëm la ku ñuy toppal ku ñuy yaakaar la nee na kon moom itam na ngeen xam ne foofa rek ca la nekk te siinoo ko wàcc nee na bu dee ci diggam ak bokk julli mooy al uxuwatul itam nee da koy fetli ndax loolu la fekkoon rawatina nag Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne mooy fu mujj nekk ci xalifa Serigne Touba nee na fa mu ci nekkoon rek ci yeesal ko ci digg ma bokk jullit yi Serigne bi nee na nee na loola képp la fas yéenee wéyal ci mboolem boori kër këri diine yëpp fas yéene lépp àndandoo nekk benn nekk wenn say lépp lu ñu def euh, mu mu mu dëppoog lislaam lépp lu ñu def tam mu dëppoog loo xam ne genn lu nuroog ak jooy du ci am fa soose rek la fas yéene te tànkam nee na kon mu ngi ñaanal Cheikh Sidou Moussa suñu borom doole ay leen saa suñu ci barkeem kon nañ xam ne yoon wi nga xam ne waxoon na ko muy ñëpp dégg ko ñaane foofu rek la ci nekk te loolu la fas yéene yeesal li ci dolli ko waat nag mooy jëm ci taalibe Serigne Touba yi bi nee na mi nga xamante taalibe yëpp na lim yéene boppam rek la yéene te moom wax na boppam fi mu jëm wax na it ni fas yéene doxale dara desu ji nee nag nañ xam ne yoon wii di yoonu Serigne Touba Serigne Touba da ko sanc ci yar ak i nee na kon nag képp koo xam ne yaakaar nga Sëñ tuwaa na nga xam ne lépp looy jëfale Sëñ Tuubaa yar ak i moo ci war a jiitu kon nee na loolu mi ngi koy digal taalibe yëpp ne ñëpp xam ne buñ tënkoo ci ndigal Sëñ Tuubaa eh, ne ne yar ak i teggin sax ci taalibe mbooleem liñ bëgg danañ ko bu fekkente ne nag wàcc nañ ko nag boobaa nañ xam ne lu leen ci daal ñoo ko ak seen bopp kon nag nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom dolli jàmm ci réew mi mboole xolu jullit yëpp. mboolem yi nga xam ne ñooy kër yi ci biir réew mi itam suñu borom gën leen a boole ndax Serigne Touba waxoon na ne yaar rek fi nekk innamal mu'minuuna ixwatun mu ne ak tey la inna shaytaan lakum aduw mu ne ak nax la mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag innama mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag ndax gi ci inna innama inna shaytaan lakum aduw mënu ko yàq kon nag nee na nañ xam ne eh, lii di këri lislaam yi eh, defar ci ba jëm cee defar rek moo ci am waaye yàq ci moom kenn mënu ko ndax lu leen jiitu la te kilifa yi fi nekkoon fàggu nañ ko ba noppi kon nag moom ci liggéeyam ak li mu fas yéene liggéeyal Serigne Touba fas na ko yéene ànd ak bokk jullit yi fas ko yéene ànd ak bokku taalibe te teg teg ko nag lépp nag ci sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam teg ko ci ndenkaane Serigne Touba te ko fas ko yéene wàcc te fas ci dugal dara fas ci génn lenn loo xam ne lu bokk lu ci Serigne Touba dugaloon la wala loo xam ne Serigne Touba bëggutoo mu tàbbi ci biir. kon nag euh, ngir bañ a guddal rek sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu fekkee am naa lu ma ci wax dolliwaat nag euh, sëriñ bi dana ma ko waxaat ma àggale ko